alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu Nous avons organisé l'association association des imams et des ulémas au Sénégal Nous avons organisé avec une ONG thème bi nga xam ne ci la discuter de planification familiale lan la islam wax planification familiale Cheikh Moustapha Gaye bi nga président de président association des imams et des ulémas au Sénégal il ci def conférence pour résumer l'islam la planification familiale bon en conclusion la planification familiale islam d'accord ko accepter L'espace accepté euh, espace de naissance islam doit accepter accepté lu est moi mooy naissance islam l'islam. La conférence bi ci la base dafa joxe ay détails bari ay témoins ci alquran ak sunna ak ci ulama yi ci loolu lañu doon discuter xam naa ne lu mu wax aussi ñi fa nekk ci salle bi mooy borom xam-xam yi ak imam yi ñëpp d'accord ci li Moustapha wax parce que dafa jàll ci yoon dafa dépp ak li alquran wax ak sunna voilà ci loolu la ñu doon discuter. xam nga avortement soo déggee planification familiale. dafa di lo xamné prévention la dañ koy def bala grossesse grossesse bi am mais grossesse su amé kenn amul droit la ko xana su fekkee ne santé mère bi moko laaj su fekkee ne dafa am médecin bo xamné moko wax mu né ki de mënul jur doomu bi jur normal mun am sax bakkanam dess ci en la islam may nako ko ñu def avortement mais à part ça euh, autorisé wu ko Abdoulaye Ba may imam euh, Euh, centre islamique euh, pour l'appel au Coran et à la sunna bi nekk avenue Malick Sy fii bu ñu wax jàkka Saraxule maa maa fa nekk imam